asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 12 juin 2019 ñu ñëw yéen ci yëglekaay yi mu mel ni ki nag yëglekaay yi tey suñu làmb la ñuy xëy ak Leewtoo TV ak Leewtoo point net bu dee suñu làmb la moom kii nga xam ne nii daal mooy Keba Kanté moo xëy daal tey di wax moom li mu xam ne daal nee na Alioune Sarr daal fi mu nekk nii moom amatul benn droit maanaam ñu koy rempliraat muy continuer di jiite li nga xam ne moo di CNG bi loolu daal mooy ay waxam nee na moom daal dem la war a def léegi daal moom mi nga xam ne ni daal mooy keebaa daal tey Alioune Sarr la xëy sonk ko mayu ko fenn foo xam ne mën na faa yekke ak nàkkam nee na ko daal buubal say kaaka ak say dëbës te dem nag ndax dem dafa jot ñu ne ko lu tax mu ne parce que li tax mooy fédération moom war a am ci làmb ji te nee na moom sax fédération boobu bu amee moom mii nga xam ne mooy Keba Kanté dafa bëgg ñu jox ko ko mu jiite ko maanaam daal daal di doxal moom mi nga xam ne daal moo nekkoon président écurie Fatick bi daal loolu la xëyee tey ci yëglikaay biir sunu làmb bu ñu demee ci Leewtoo point net nag Alioune Sarr moom mu nga fa waaye moom nag la muy xamle daal wala mu Alioune Sarr la ñu waa Leewtoo point net di xamal daal samedi ji ñu moom wala boog ajjuma ji ñu jëm am na benn conférence de xam ne day fas na ko yéenee amal lëm te jub nu lëg mooy waajal li nga xam ne mooy drapeau chef de l'état bi jamono ja ñu nga xam ne Keba Kanté ngay wax ak demam moom mu mel ne Alioune moom mu ngay wut ay yoon yoo xam ne ca la ñuy jaar ngir drapeau chef de l'état bi am réussite moo tax àjjuma nag mu woote conférence de presse Leewtoo point net la ñu jàngee loola waaye dañuy continuer leneen loo xam ne tamit ñu ngi ko fekk fii nga xam ne nii mooy ca Leewtoo point net mooy kii nga xam ne nii day moom moo di rëg-rëg rëg-rëg daal mu ngi ca Leewtoo point net waaye mu ngi ca Leewtoo TV rëg-rëg daal la mu xam ne daal nee na diggante ma Gris 2 na leer du yàgg du të arbitre soufflé wut moo tee mu jeex dem la wax loolu ci open press ba nga xam ne mu ngi ko doon def ca Caaroy ñu ne ko waa diggante Fass ak Caaroy mu ne loolu moom masta neex ci waa Fass lu dul ay duma mësuñu ko cee jële ndax ne na papaam di papa kan dóor na mbay kay mu daanu rëg-rëg moo wax lii loolu du samay moo ko wax ca Leewtoo TV ba tey bu ñu continuer nag dem ci fii nga xam ne bi ca Leewtoo TV lamb jooju nga xam ne nag moom la ñu war a amal samedi te Luc Nicolaï war koo tëgg mu mel ni ki nag tey jii day Luc xëyoon na di def ay démonstration moo ko waa sécurité ba commissaire ya commandant ya ak waa CNG ba ak presse ba kenn manquéwul ngir samedi nag lam ja ku fay dugg dugg ci jàmm booy ñibbi ñibbi ci jàmm ku ñëw nag ngir loola moom yow yëglekaay bi di Leewtoo point mu ngi ñuy xamal ne day Luc jël na cay décision loola xamal ne yaa ko fa góobe ndax ñoom bëre lañ fa woote ak jàmm ba tey bu ñu continuer itam demaat fële nga xam ne moo di sunu làmb sunu làmb moom ñëw na ci kii nga xam ne moo di Siteu Siteu nag mu mel ni ki day MMA ja la fas yéenee xuus ca réewum États-Unis champion di ka nga xam ne daal moo mën ca États-Unis ñu koy wax Aaron Brink day moom la Siteu dëkk dëkk nag nee na ko yow kaay nu defante te boobu combat day ah ndax le 28 septembre mënu caa am Siteu daal fi mu nekk nii moom mu nga bëgg a wane boppam a baax a baax fa nga xam moo di ca MMA ba ñoo nekk ca États-Unis ki wane woon boppam moom ba daan dimanche ji ñu génn mooy Modou Dia bu Yoff ca sunu lamb Modou Dia nee na day nee na mook espoir lamb yi moom nee na sama diggante ak ñoom c'est fini jeex na nee na nañ ma jox ci mbër yu mag yi ñu ne ko waa Kewel lu tax li ko dal sa kaw dal ko mu ne leen na ko yu ko yóbbe rek daf maa xamut te laajte wu ma li mu foogoon moo ko nax ñu ne ko sa avenir mu ne avenir moom mooy mbër yu mag yi rek nañu ñëw daal bëreeg moom ndax nag toll na ci moom mot ja dynamique de victoire bi Yoff nekkee itam wax na ca nee na seen objectif daal mooy déwén sunu làmb door bi ñu gañe ko moom daal mooy li nga xam ne ni moo di waxam saison nag daa mel ni tëj na ko ngir déwén moom mi nga xam ne daal moo di mot ja loolu daal la xëy tey di ko wax ci yëglekaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb équipe ba nga xam ne nag moom moo di équipe bu Kaffrine ba dañuy dem ca drapeau sur la table moom moom jàppal léegi topp xamal nañu day tànn nañu seen ay mbër mbër nag kii di gaskel ba jàmme moom daa mel mu nga ca mooy dooli seen pile de cent kilos ak ku ñuy wax Mamadou Sarr mooy cent kilo ba Laga Ndong quatre kilos ak ki nga xam ne mooy Demba Sanoxo soixante-dix-huit kilos ak Mamadi Diop soixante-six kilos loolu Leewtoo point net lañ ko jëlee waaye leneen loo xam ne mu nga ca Leewtoo point net muy aw tiis di aw naqar muy loo xam ne day dañ naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Ablaye Diouf nekkoon ab arbitre ci làmb ji dëkk fa nga xam ne moo di lul seeseen moo génn àddina démb ci loo xam ne day ne nañu lu bettee bette la ndax sax ñu ngay jàng ci Leewtoo point net ñu ñu xamal ne day arbitre yi nga xam ne ñoo waroon a arbitrer samedi diggante lambi gri 2 ak ki nga xam ne mooy Reug Reug coppite woon nañ ko ca mu mel ni ki daal kon yàlla dong moom képp moo man moo fi ne te mooy dogal ndax nag doomu aadama bi day mébét la am waaye ndekete yàlla moo yore lii nga xam ne ni mooy décision yi kon ab Ablaye Diouf moomu dëkk ca lul seeseen ñu ngi koy jàll waa lul seeseen di ñaan yàlla yàlla yërëm ko jéggal ko te xare ko aljana comme la ñuy waxoon rek du dañ te defe naa sax yàllaa ko waxoon moo noon fa kullu man alayha faniya maanaam lu ma sa tooy da ngay wow ku dund dangay dee kon daal taala njaay nañu jéemoo nañu saxoo bokk def baax te di ko wax te yéeneen te jàmm te yàlla rekk tax ndax nag kenn mënut dara lépp sunu borom bi la moo ko waa Leewtoo TV ñu leen di leen di leen sant Babacar ngeen àndoon nag moom léegi ci revue de l'arène bi nu ànd nag yéen ci jàngatu arène yi Babacar maa ngi lay nuyu fay naa la Ndeye Kumba Fall naar bu xees ah namoon naa la xam naa internet yi tamit namoon na la internetu Leewtoo TV di leen nuyu rek di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ci Leewtoo TV fu ñu mën a nekk ci àddina bi ñu ngi leen di nuyu di baax a di wax internet yooyu rek ku leen nam euh, koo leen nam rek nam euh, raw naa leen foofu n'est-ce pas noonu la n'est-ce pas ok ni ñëw nag si sunu lamb tey dañu ànd ànd euh, ak Kéba Kanté nekkoon ancien président wu écurie Fatick moom tey nag dafa génn sànni ay doj yu rëy a rëy si si Alioune Sarr neen daal Alioune Sarr dafa war a dem ndax dafa sonn warul waratu remplir maanaam joxaat warul warul yéegaat daal joxaat ko si moom mu nekkaat si bopp CNG bi waaw Keba Kanté day comme ni ñu ko xamee rek moom acteur làmb la parce que écurie Fatick boobu nga wax nekkoon na président bi encadré mbër mel ni ñoom jokkeel ak ñooñu tey ñu gis ko si ginnaaw Malick Niang kon acteur la si biir làmb amateur u làmb la waaw nit ki nag mbir boo ca bokkee am nga droit wax ci sa xalaat pour man xalaatam lay joxe si que ne dafa war a dem wala waruñu woon ko remplir maanaam waruñu ko dolliwaat boog remplir rempliral maanaam mandaam waruñu woon ko dolliwaat dafa doy ah loolu nag comme ni ñu ko nit ku nekk ak sa gis-gis ak ni nga bëgg wala ni nga yaakaar ne mbiri suñu demee noonu lay noonu lay baaxee xëy na moo tax mu génne di wax mais ki nga xam ne moom moo yor bi nag di le ministère des sports ak état du Sénégal xëy na ñoom ñi fiy ñëw di ay président la ko dala ci Abdou Diouf Wade ba ci président Macky Sall ñoom ñooy remplir ñoom ñoo koy dolliwaat ay mandat mu di fi toog yaa ngi dégg bi yoon dolli nañ ko ñaari at ñu yónnee yàgg ba xam ndax bu ñaari at du matee day dem wala du dem waaye loo ci mën a dégg daal mu toog fi wala mu dem fi ñun moom li ñu ci gën a intéressé mooy que ni kuy ñëw wala ku fi nekk na nga fexe li nga xam ne mooy làmb ji nga xam ne suñu sport national di suñu cosaan nga fexe promouvoir ko ba nga xam ne dana yegg ci niveau bi nga xam ne acteur u làmb yi ku ci nekk ci côté ba nga ci bokkee di nga ci gis sa bopp loolu am na solo Babacar nu dem nag si mbaa bi nga xam ni moom mooy war a am samedi si arène national su fekkee tubaab la ñuy wax compte à rebours maanaam nu ñu commencé di compter fan euh, démb rek moo aye woon fee si Thiaroye def na fa open press bu yaatu donc mun nañ ko gis tamit si si Leewtoo TV wax na fa daal ay cadre nee na Fass musul am ndam ci kaw euh, écurie Thiaroye waaw loolu de moom la wax démb loolu nag comme li may wax rek fi mu nekk nii ñoom euh, wala mën na wala may dugg si lool en 100 pour cent démb ñoom vraiment rëg-rëg waa dañ ko maanaam dañ ko dañ ko dar tamit dafa mel ni dar bi ñu ko dar caaxaanuñ ci ndax ñoom ñëpp a génn Xaadim Njaay gis nañ ko gis gis nañ ko démb ñoom bàyyi ma joon fëgala maanaam isaa puy képp ku dëkk ci zone boobu rek di mbër parce que démb gis nañ la foofu ñoom bis demee numéro 2 euh, ñoo loolu nag mooy mooy moo mooy àddina dëkkandoo àq la rawatina nag koo xam ne da ngeen a bokk te ñëpp ay mbokk lañ rawatina ñun mu dëkkal ñu génn dar ko mu def open press am mbooloo mi tamit fees fa del la vraiment dem foo takk mbooloo mi weesu na ko ci diggante Fass ak Caaroy diggante Fass ak Caaroy def na histoire bu yàgg la ndax suñu papa papa kan moomu di bàyyi ci moom yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko moom bépp jullit bu tëdd ci suuf yaakaar naa am na fu mu jaar ak mbay géey ci ay làmb waaw bu dee tamit ci côté yeneen côté yi la bëri na daal loo xam ne yàgg nañu ko seq ci làmb ci diggante Fass Caaro yi parce que derby dafa mas di am ci diggante yu mel noonu kon nag xëy na derby boobu moo yeewuwaat parce que làmbi Caaro ak xaw naa gëj a ci bu ñu rombee Gris Bordeaux bàyyi ma njoon seen ñaari combat yi wala Tafa Gueye Xaadim Ndiaye ak yeneen yi ko jiitu woon yaa ngi dégg kon tey bii dër bi waat li amaat nii mooy dër bi boobu mooy waat ndax rëg-rëg li ma la wax rek hmm, lambi simple ji da cee teg loxo te lit avec frappe déggagu ci muñul macha allah Gris 2 tamit lit avec frappe li ma waxoon laay waxaat wan lit waneegu ci boppam 100 pour cent benn yoon laa ci gis mu participer tournoi gagné laay njombour final fii parcelle mais lit avec frappe itam mbër daanu ko ci kon combat bi enjeu bi foofu la nekk maanaam ñoom ñaar kenn dégg ko ci muñal te ci kàttanu yàlla xalaat nañ ne samedi wala yi xaar il faut am ku dégg muñal waaye olofa ne ku fóotal mbëtt moom da ngay bar démb rëg-rëg moo woote woon open press am tey incha allah rabbi Fass ci terrain Santhie yaakaar na Gris 2 moo fay woote open press mais technicien yu bëri ni ngi wax ni que Reug Reug dafa ànd ak excès de confiance parce que xëy na ñi muy daan lutte simple bi noo gën a ëpp dayoo Gris euh, Gris 2 est ce que loolu tamit nekkul loo xam ne mën na ko mën na mën na créer ay surprise si côté moom Reug Reug est ce que waru wàññee tuuti dangar ki nga xam ne moom mooy Gris 2 man pour man jël na ko au man sama gis-gis man jàpp naa ne na ko au sérieux dafa fekk ne que nag Reug xale la te mu ngi ci confiance mu ngi tamit xale la waaw ñoom ñaar yëpp ay xale lañ mais comme ci Reug Reug nga wax ci moom laa lay delloo moom xale la mu ngi ci dynamique am nekk mbër bu am confiance ci boppam mën na li muy def macha allah yaa ngi dégg am na encadrement tamit pour man am na droit di waxee noonu mais gëmuma ne rëg-rëg dinañ ko dar ne ko sous-estimer maanaam nga sous-estimer Gris 2 wala ñu ne ko bu ko jox cër xëy na nag communication bi ngay dégg ci làmb tout le temps du bokk ak réalité géew bi dama koy wax di ko waxaat mais yaakaar naa adversaire bu mel ni Gris 2 di xale am doole macha allah nekk ci écurie bu ñuy wax face defe naa du ñu doo jël avance am ngeen di bëre sa ay encadreur ne la nga xeeb ko wala nangam non non non mais dafa fekk naka nag comme dañu jëm si combat di nga dégg communication bi façon bu ne dina am mais dama gis sama yaakaar daal mooy euh, ñoom ñaar kuñ ci dar wala ña la dar ne la xeebal sa morom wala bu ko jox cër non soo daanoo dalay bett parce que ñaari mbër yépp ay xale lañ te gis nañ leen bërki dem bi ñuy yu am doole lañu macha allah waaw yàlla yàlla laf cat laf caaf comme ni nga koy waxee Babacar nu des toujours ci combat boobu noonu tey demoon ngeen euh, feet ci arène nationale ànd ak sécurité bi ak promoteur bi Luc Nicolas ak waa CNG nu xool disposition de sécurité yi nga xam ne war nañ ko jël ci combat boobu ndax foog naa ne arène nationale dëpp mu ubbee bu léegi amagul combat bu mag boo xam ne promoteur ñame na ko fa tëgg te Luc nag comme la wax rek dafay innover moo tax tey mu dem fa ànd ak bi ak ñëpp ñoo xam ne lañuy yëngu ci làmb nu xool disposition yi war a jël ci ci boobu waa lig euh, lig Nicolay noonu la def vraiment te xëy na woo foofu presse bi ay 10 heures 11 heures ah, ñu ñëw xool arène bi taxawaay dispositif bi naka la war a demee ak tamit le commissaire de Pikine jiite woon ñi nga xam ne ñooy waa police bi ak le commandant xamuñoo ñëpp ànd ak ñoom commandant Thioune waa CNCR docteur Thierno Ka mu nga foon wala boog Thierno Ka mu nga foon président Thierno ak ñëpp ñi nga xam ne daal làmb ji intéressé leen suñu papa Bekaay Mbaye ñu koy nuyu mu nga ne presse bi ñëpp nga foon loolu nag lim ci jublu moom lig mooy que ni xëy a waaj pour que samedi nit ñëw ñu mën a ñëw ci jàmm ñu ci jàmm parce que comme ni ko Thierno Ka waxee foofu rek te dinañ ko gis ci Leewtoo ci bi ba tey xëy na ñu fay door a tëgg làmb yegg ci niveau boobu yaa ngi dégg moom noonu la ko waxee te yaakaar naa it noonu la demee li ci des nag mooy que loolu lig def mooy li normal combat bu mag la comme ni ñu ko waxee tamit niveau bi kawe na kon yaakaar naa il faut nga jël dispositif bi nga xam ne nii bu ñu ci yeggee samedi daal ku fa ñëw ngir làmb kese nga fexe dugg ci jàmm ñibbi si jàmm ku fa ñëw nag comme ni ko commandant ci di waxee bëgg a lëmbe nday kumba ah boo ko keroogee nga seq koog waa mi rek parce que nag groupement mobile d'intervention moom ñu ngi ci réew mi te la ber la fañ la war a ber jubbanti la ba nga jub ñu bàyyi la nga ñibbi. loolu am na solo Babacar ñu des si euh, bëre bëre MMA. xam nga bomba Bombardier moo moo xàlloon yoon bi mm-hmm. euh, Tapha Tine jéem na essayé tamit euh, si MMA léegi gis nañ Siteu Siteu mu ngi si am na combat si si weekend bi mu ngi war a bëre ak champion bu ñu wax Heron Brick donc moom tamit MMA la war a def noo gisee mbër yi nga xam ne léegi ñu ngi dugg si làmb ji. si si MMA si MMA. waaw ay satu taal bu tëye tàkk noonu lañ koy uppee ah, olof a ko wax tey eh, mbër yi waruñu yem rek ci benn sport. parce que benn sport mooy lan mooy lamb kese non non pour man war nañu mën a intégrer ci boxe international bi war a intégrer ci MMA bi noonu Bombardier amee fit ba dugg ci ba tax tey mu ubbi porte yi yaakaar naa loolu bu kon moom dañ koy féliciter moom Bombardier ah. ji nu moom muy suñu cosaan mais bu ñu amee combat MMA dem bëri ji dem jongante ji ko parce que comme la leen di yokkal yokk seen tour ci au international loolu man dama leen ci ciy encouragé di wax Siteu ku ciy jongante daal ak ku dëkk bitim réew ku dëkkul ci réew mi dañ lay ñaanal yàlla nga am ca ndam parce que nag olof a ko wax lu gën a jege gën a yey te ay sénégalais la ñu. Euh, Babacar comme ni ko xamee rek drapeau chef de l'État bi euh, léegi mu door si biir weer bi la c'est du 28 au 30 léegi euh, looloo tax président Aliou Sarr ak membre CNG ñëpp di organiser benn point de presse àjjuma incha allah si loolu sax moo tax waa Kaffrine. tànn nañ seen juróomi mbër yi nga xam ne noonu la war a teewal foofu noonu si Mbour euh, Gaskel Diabé moom lañ jël comme comme seen capitaine moo leen di représenté plus de cent kilos. waaw loolu moom am na solo trop ñu leen di ñoom ñu leen di encouragé ah dina wax ne comme tànn nañ seen équipe ñoom waa Kaffrine kon ñoom defe na pare nañu. yaa ngi dégg pour le pour mois de juin bi ñu nekk le 28 ba le 31 wala 30. ok ca mbuur drapeau sur loolu nag mooy yoon ah teel a fagaru rek waaw parce que balaay tëb leen di jot moom fekk na sot soccet jatu ba pare boo daan ëpp muy naaw xëy na fa Kaffrine loolu la xam moo tax ñu teel cee dugg kon d'ici quelques jours di nga dégg yeneen équipe yëpp ku ne génne sa sélection comme ni ko Kaffrine defee si biir journal sunu lamb aussi ni ngi gis coach euh, Fatick bi Bafa Gueye mi ngi wax naan seen objectif ren euh, ren mooy jëlaat seen seen trophée bi te xam naa ne kon du yomb ndax Dakar tamit mi ngi si bi ne dafa bëggaat trophée bi de moom ren boo bëggee dëgg dëgg day ndax équipe bu Kaffrine bi ma limb léegi mbër yi ma fa gis duñu ay jëm ay mbëru caaxaan euh, bi non duñu ay coomo parce que Gaskel Jàmme ak ak ñoom lagandong ak booy ma gis Fatick yaakaar naa est-ce que na mu daan jëlee drapeau de l'État est-ce que doo dana yombe ci noonu ba fa yaakaar naa ah foogatuma mu na ko daan defee mu yombe ci yow ndax dakaar bu ñëw dina ñëwaat ak doole ndax da ko gagné woon daaw te day bëgg a confirmer itam dañ ci bokk te dañu indi ay mbër yu ndax selemele ak ñamu àndal ñooñu rek doy nañu yaa ngi dégg Diourbel da nga koy bàyyi xel Kaolack bi doon tàmm jël deuxième topp si Fatick bi yoon dafa wàcc dem ba troisième te xam naa dina bëggaat nekkaat premier wala deuxième. premier wala Kaolack a ngi noonu kon daal jàppale drapeau soldat moom ah, Fatick d'accord daan nga ko jël mais yaakaaru mu yomb ci yow léegi moom non fooguma ko. Babacar nu fàttali ni que euh, Boy Bawal tey dana def open press fee si si Ngor si Ngor nu fàttali ko rek suñu mbokk internet yi Babacar xanaa nu jaaxle euh, jeexale rek actrice bu bu bu dal si kaw njabootu làmb arbitre bi ñuy wax ab Ablaye Diouf moom moo wàññeeku démb si loo xam ne bett na ñëpp. Euh, mais comme li ñuy wax rek mbiru yàlla ñu koy jaale waa CNG di ko jaale ñoom maalikom askanu làmb yëpp nu lañ koy jaale di leen fàttali que dimanche sax moo arbitré demi-finale entre Pakal ak Thiaka Faye comme lu wax rek euh, làmb yi daal dafa euh, décès bi bett nañu bëri waaw ba dañuy wax kan rek comme loolu nga wax balaa muy ñëw sax si loolu Assane Ndiaye moom moo tëgg dimanche parce que li ma waxoon rek Gris de Reug bu jeexee waxtaan ba mu ngay nekk studio bi ba Mar Diop yàlla nañu ko fekkete tey lay def open press am ca Ngor waaw muy combat boo xam ne tamit bu jara bàyyi xel ndax la ma waxoon rek ñaari mbir yi fi ñu nekk tax ku ne da nga jóge ci defet bu dee marle suba lay def ci géejawaay kon loolu tamit nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ci kàttu yàlla Leewtoo TV dina leen toppal open press yépp ñaari yépp ak yu yi des yépp leneen loolu nga wax tamit dañuy waxaat rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun parce que loolu mooy li am yàlla sunu borom bi moonu sàkk indi ñu ci suuf ngir ñu jaamu ko yaa ngi dégg bu ñu fi jëlee tamit moo ñu fi moo ñu fiy jëlee ci ni mu ko soobee yàlla na yàlla def daal bu ñu fiy jëlee rek lépp nekk yërmande Ablaye Diouf arbitre la bu ñu xam vraiment nekk ko nit koo xam ne ni minante woon nañu nii vraiment mu nekk nit ku am jàmma ah, dëkkalul seeseen comme démb ndeysaan man biñ ma ko ah, fans bi xëccoo la waaw mais moo lay wax ne àddinaa ngi noonu daal li may wax daal tout le temps rek ndey ko ma mooy que ni ñun yàlla bi ñu fi wàcce nekk ay nit ñu yéneente jàmm di dimbalante te yàlla tax parce que leneen lu ñu lu loolu rek ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy rëccu parce que mbir yi xamoo kañ la xamoo naka la kon daal li am mooy li ne ci man ma bëggal ko sama bopp naa ko bëggal ndey ko ma bëggal ko taala mais bëggal ko internet yi nga xam ne dañ ñuy siiw parce que àddina loolu moo fi am te yàlla li mu bind doomu aadama moo ko ci gënal kon nañu joxante cër di baloonte àq seq ñaanalante dafa am solo daal dafa am solo am na solo parce loolu am na solo àdduna comme ni nga ko waxee rek àdduna amul solo si kàddu yooyu na leen di tàggoo di leen jox dig daje suba incha allah ba boobu nag ma nuyu sama dadigay maa ngi koy nuyu lu bëre bëri di nuyu sama yaay di nuyu sama doom Mohamed di nuyu Tandine euh, depuis Italie chéri Khadija Diallo Babacar. waaw dadigay ñu koy nuyu di ko ziar di nuyu tamit mère Sow sa yaay ak sa doom Mohamed ak képp ki nga xam ne mu ngi suivre ci àddina bi ak fu ñu mën a ne mais Khadim Ndiaye Touba Italie du ma ko fàtte. Kalicia nekk fii si Colobane moom tamit ak Papa Gueye ministère des finances borom montre bi. ak costume bi tamit nag. waaw costume bi bii nag ndey Kumba moom xam naa ma waxee gars yi nañu de bi moom maa soloon sama bopp bi jamono yi may jaay fëgg jaay la wanteeram fëgg jaay ca ko tànne woon dama ko fonk bii muy nuyu ñëpp Khadiros Ndiaye maa ngi koy nuyu depuis Allemagne di nuyu itam parce que Khadiros dafa am ay mbokk fii Eliane ak Nicole ay mbokkam la ñoo bokk dëkk Palmarin waaw kon xaritu say mbokk ngi fii ci biir Leewtoo maa ngi lay nuyu di nuyu tamit tuuti yaay Sarr di nuyu Baye Sall mais di nuyu tam sama yaay soxna Anna Cheikh Anna di ko jàll ni jaayam rek sa jaa cuun di ko ñaanal yàlla mu tam yàlla yërëm ko xare ko aljana ndax moom itam suñu internet la di nuyu internet yépp ñoom maam Modou Gueye Talib sëñ Babacar Sy Assane Sall sëñ Baara Ad Baara Brésil Baara képp kuy suivre daal ñu ngi lay nuyu Ousmane mooy ne ci montage bi Talla ci film bi Kumba tey ñoo fi toogoon yàlla na réew mi yépp jàmm waaye yàlla na bi am jàmm taala Talla chéri Lébu euh, Teneng chéri Babacar maa ngi leen di nuyu.